li ma yéeg mooy euh, mbégte li ma yéeg mooy bànneex li ma yëg mooy euh, mbégte mu yaatu rek ndax li ma yëg ci sama xol lottu na ma génne ko ci ay kàdd ndax mbégte mu rëy rek ndax nit ki amul lu dul fa mu bokk nit ki amul lu dul li mu gëm te fii dëkkub Serigne Touba la te sëriñ Touba ñëpp xam nañ ko ci xam-xam kon nag buñ ciy nab nabi ba yàlla defal ñu ci ndam. waa kër sëriñ Touba ci sëriñ Serigne Mountakha ñëw sargal ñu sargal bu toll nii loolu mbégte rek lañ ci mën a am ak tamit nag euh, di gën a wax alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag tànn bi yombul woon ndax matoon nañ ñatt téeméer ak juróom fukk ak euh, juróom-benn bi ñu demee ba ci cappaandaw ja ñeen fukk ak benn lañu nangu seen bokk ci ñeen fukk ak benn yooyu ci lañ tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo mujj raw gàddu ndax bu ngeen ko xoolee Afrique dañ ko def juróomi dënd dënd bu ne dafa am mbër mu fa génn mbër moomu dafay am ñaari ndomba day nekk mbëru Afrique ba noppi nekk mbëru famu dëkk kon man dama nekk mbëru Afrique ba pare nekk mbëru Afrique sowu jant muy fukki réew ak juróom benn muy loo xam ne Union africaine noonu la ko doxee ndax dañ ne Union africaine dañoo Afrique na booloo bañ a xàmme kii fee la dëkk kee dëkkul fee booloo boobu nag moo waral mënuñoo tànn benn rek ne mooy champion d'Afrique dañu tànn juróom ci góor ñi daan ne ñoom ñooy teewal Afrique ba pare ku nekk sa gox nga euh, nekk fa mbër yombul nag ndax ay laaj la laaj la yoo xam ne dañu koo jaarale ci xarala yi biñ ko ci jaaralee nag def na suñ képp lay kattan ndax laaj yi ci wàllu njàng mi la ci njàngale ci lan nga dund ci njàng mi loo ci mas a def lan nga ci coono bi nga ci def daal ak li nga fi nga jaar yëpp moom ngay wax ak lan nga def ci sa biir askan yow jàngalekat loo indil sa askan lu baax loo indi sa askan ngir mën koo jàppale loola nag comme jot nañ ci liggéey lu bari nam na bi ci moo waraloon jafe woon na waaye xaw naa yomb ci mbir jafe-jafe nag mooy xeetu xaral yu bees yi dafa am lu ñu ci doon teg loo xam ni boo ko sàmmoon teewut moom doo dugg ci laa am nag euh, wërsëgu rëy macha allah liggéey ak benn nit boo xam ne fu ma taxaw dama koy sargal muy Basiru Kase mii nekk sama wet mu doon nit ku jàmbaar nit ku nit ku xarañ macha allah nit ku am dal ku yaru baax koo xam ni iyaa bu Jurbel dafa ne ma liggéey ak moom te lépp nag ministère bi moo ko taaw ci ndigalu président de la république ba yàlla indi ndam lu toll nii lépp rek jafe-jafe yu ci amoon yëpp rek ak seen xarañteef fexe nañ ba loolu ñu saafara ko ba dugg ba Sénégal dem nekk ca kaw a kaw macha allah. sant Serigne Touba rek ñun lépp lu ñu am Serigne Touba la lépp lu ñu yaakaar Serigne Touba la lépp lu ñu am dañ ko koo jébbalaat kon prix bii Serigne Touba lañ ko jébbal ak communauté mouride yëpp jébbal ko tamit peuple sénégalais ci turu ki nga xam ne mooy seen njiit muy chef de jébbal ko képp kuy yëngu ci njàng ak njàngale ci baatu Mamadou Talla mi nga xam ne moom moo jiitee ministère boobu ndax man dinaa xalaat ci lu may jëm suba ndax man dama nekk ci waar jàngale mooy sama métier maa nga ca defal naa Sénégal lu ne macha allah ci ay ndam kon nag man damay xaar Sénégal delloo ma li ma war a delloo waaye man du ma laaj ndax nag nit ki boo nekkee ci waar di def defaat defaat defaat kon kooku yow li nga waroon a wàccoog sa réew def nga ko gis nga waatu baa ni ma defal muy ndam lu kawe te yemul fii dana am yeneen yu ñëw macha kon foofu la ñuy xaar réew mi rek macha allah.